Pasar Gaye. yegsil Pasar Gaye. yegsil Pasar ñëwal. yegsil Pasar ñëwal. yegsil muy Alik muy Alik muy Alik muy Alik. Alik Alik gor ñëwal gor. kaay du lëmbal kaay kaay Dolo yëgal xosaalo dolo yëgal Bello dolo yëngal Fadelo dolo yëngal Fadelo dolo yëngal Fadelo dolo yëngal Fadelo dolo yëngal Ñaw déggal ñaw lii xamante ne Sénégal mooy tere parce que tax wax ki nga xamante ne artiste international renommé kenn doon ko présenté mi Fassar bëgg naa la. seelo jawrin ak saan maa ngi nuyu ñëpp ah di ziar ñëpp mbokki internet ak Sénégal ak képp kuy bëgg Fassar maa ngi lay nuyu. tey nan nga gisee programme xamante ne fii si waaw comme ni ñu waxee rek waykat bi bu yéegee ci kaw scène bi du xam kenn waaye ñun feckat yi bu ñu xamuñu kenn yéeg nañ ci kaw terrasse yéeg ci kaw tribune ba lépp ambiance show la ñu wax le king ambiance dañuy ànd ndax yoo xamante ne dañuy ambiance ba ba tax moo tax ñu waral ñu def li yëpp def daal bilaay mais kontaan nañ trop. ban yëg-yëg nga am ne la waa Louga accueillir waa baax gën ndax ci suba ba tey ñoo fi ñoo fi jiitu sax orchestre barke Serigne Saliou mais dara nekk fi du lu alaam ak mbaax ak ñëw fekk si bas ñëpp ku xamul bas sax ñëw nga par force danga koy xam ah ñu kon am contentement bu baax. mais ñu gis li ngay li ngay dégager ci énergie ci kaw seen loolu lan la lan la. waaw xam nga booy fecc ay fecckat fecckat yi ñu am énergie. dañ lay dooleel dañ lay jox énergie waykat bu am énergie da lay jox énergie yow fecc kat bi day tax loo war woon def sax da nga koy def bàkk Serigne Saliou xam nga ni waa Sénégal jox nañ la bopp ah man dama jéem rek boo mënee fii toog bàkk Serigne Touba ñaanal leen mu yokk na la jàmm sonal amin merci beaucoup boo mën a say merci